leen jëf ñu ngi leen di nuyu leen sant leen gërëm ci bàyyi xel gi leen dalal ak jàmm ci seen site internet 24actu point com waaye tam ci naafile weeru koor gi tey jii ci guddig ñaareel gi naafile gi doon juróom-benni ràkka rakka bu ci nekk fatiha ak fukki ina ah tey kawsar juróom-benni rakka nag mooy ñetti sëlmal ñu fàttali leen ko juróom-benni rakka bu ci nekk fatiha benn yoon fukki ina ah tey nakal kawsar juróom-benni rakka nag mooy ñetti sëlmal julli ñaar ràkk sëlmal ba muy juróom benn yoon jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm